njëg yu bari itam bu yàggee rek am ci yàlla nangu man Malick Bassine moo daan wax loolu ee, moo tax gone gu ci bëgg ee, am li nga bëgg fexeel ba yàlla na ngay li bari di jëm ci yow rek yàlla na ngay yu bari nag li koy waral mooy yar ak teggin rek gis warmaal koo gis suturaal ko rawatina mag ñi ñu di la ñaanal mooy yàlla nga yooyu mu wax rek ñu dina ñaanal léegi gisoo ñu dañuy gis ñuy toog ci genn garab di fa naan ataaya di fa waxtaan ba yàgg am ci kenn koo xam ne kii day jékki-jékki rek romb gaañ yor oto bu baax ñu waay kii barki dem rek noonu daan toog naan ataaya am ku ci ne ah moo ne kër gi boo gis wax naa gis kër gi mu tabax déedéet ñenn ñi ne ah da ay sàcc ñi sàcc xaalis sàcc nañ xaalis si réew mi liggéeyu ko de fekk yàlla na ko ñu nangu rek la yàlla na ko ñu nangoo gën a gaaw ci na loo dëgg loo jublu rek mu mu mu nangu loolu laal rek mu nangu yàlla na nga ju nangu noonu lay def yàlla na nga ju nangu day nangu loolu li nga soxla kon ku ci bëgg am am am am dara daal am mujj gu rafet am ay tuyaaba amal yar am teggin warmaal nit ñi ñu war te it boo warmaalee nit ñi ñu warmaal la nga am daanaka lool rek alal la ak texe la foo tollu kenn du la wax dara doo jële fi jàmbur doo tooñ doo sàcc doo def yi nit ñi def léegi di di jël alal li jàmbur yu guddi di naxanteeg ak rey nit ñeeg yooyu yëpp doo duggoo ci mm-hmm. loolu rek uh, taxe na mm-hmm. kon daal sëñ bi maa ngi yemale kii bi foofu. Mm-hmm. Uh,